ak ñoom Khalifa Sall ñoom Ousmane Sonko ñoom Déthié Fall ñoom ay Mbodj ak ñi ci nekk yëpp dañoo lëkkaloog ak coalition bi nga xam ne moom la ñuy wax wallu Sénégal te président Ablaye Wade jiite ko ñu ne ci réew mi ak ci bitim réew yëpp diaspora département moo xam ne département yi nga xam ne dañoo war a bokk ci élection yi dañoo lëkkaloo ku nekk am foo xam ne fii ca département da fa boot sa morom da ngay dem ci yenn département yi yu yeewi askan wi moo boot wallu askan wi nga dem ci yeneen département wallu askan wi moom moo boot yeewi askan wi kon boo duggee ci bureau de vote bi nga xam ne seen responsable yi expliqué nañ leen département bi kan moo ci boot sa morom boo demee par exemple ñu ne fii la ñu nekk tey département Kolda yeewi askan wi moo boot wallu Sénégal boo duggee ci bureau bureau de vote bi bulletin bi ngay jël pour wote ko mooy bulletin yeewi askan wi naam danga fa fekk bulletin bi nga xam ne mooy wallu président Ablaye Wade nekk ca boobu boo ko mënul jël boo ko jëlee tim ba nga xam ne dugg nga ci mbañ gàcce gàcce mi du moom ngay dugal ci enveloppe bi li ngay dugal ci enveloppe bi mooy bulletin yeewi askan wi nga jàpp ne boo dugalee bulletin yeewi askan wi wotal nga tim wallu Sénégal naam wallu Sénégal nga bokk ndaxte bu fekkee ne département bi dafa am ñaari député ñu tabb leen benn bi yeewi askan wi la bokk benn bi wallu Sénégal la bokk kon boo watalee yeewi askan wi perte loo sa député lu tax ñu def loolu nag dañoo gis ne bu ñu génnee ci élection locale yi maanaam mairie yi ñu ne boo xayma département yi ëpp ci Sénégal buñu bolé suñu doole ñun wa yeewi askan wi ak walu askan wi buñu démé élection ñun ñoy gagné wa Benno Bokk Yaakaar parce que comme wote bi raw gàddu la bu féké né dañoo tassa dañoo tassaro ñom buñu rawé benn wa rek dañuy jël ndam mais buñ ko doxalé nonu am nañu yaakaar ne li nga xamone mo nek suñu jafé jafé moy gagné département yi inshallah allah am majorité ci assemblée nationale té buñ amé majorité ci assemblée nationale laata ñuy àgg sax di élection présidentielle dana fekk yeewi askan wi ak walu Sénégal ñom ñoo téye nguur gi té loolu lu musul am ci Sénégal la muy lu bees lo xamné ne doxalin wi dana soppeku nek ci njëriñu doomu aadama yi loolu daal laa bëggoon expliquer leen ko ci gatt ci lu ci lu li ci dess nak am na ay vidéo yo xamné responsable yi def nañ ko wax leen département bu nek kan mo fa boot sa morom loolu tim ngeen bay ci xel bu baax respecté vote bi bu ngeen ko respecté incha allah ci kàttanu yàlla suñu borom jàpp nañ ne le 31 juillet ci ngoon ñun ñi nga xam ne ñooy yeewi askan wi ak wallu askan wallu Sénégal danañ am majorité assemblée nationale jërë ngeen jëf.